xarajta génnoon nga min jolofin bàyyi ko jolof lillahi jëm ci yàlla fii safarin ci ab tukki ak rum kawte fu tedd nga bixi ci moom safaran ci ab tukki xadd xaasa boobu laq na kuleerin gépp xéewal xarajta génnoon nga fi sabti ci gaawu ba fii shahri rabi ci weeru rabi duxan ci yor yor bi jay sosin ci atum jay sos wali waji ëtt nga dikk li jeewal jëm ci jeewal lay sa aradin biru ngay gaynde aji al ko xilta yennu nga bi kokki ci kokki waji ita te nga dikkal bax du gannaaw ba luga luga gi nga miin waxad saafarta te nga tukki za sadadin birum ngay boroomu jub fii safinatul barri ci gaalug jéere ja muy saxaar ga waxat ak xamte te nga sax bi ndar ci ndar xiinan ab diir tuusil da nga dindee bixaa ci moom ndar daa ab dalaali jàngoroy réer min ahli shakki ci ñooñ sikki sàkk wal fanadi ak fen danga bàyyi ko jolof jëm ca tukki ba muy tukki boo xam ne lépp luy xéewal yàlla la ko ci ëmbal ne la woon ñëwal jël ko bisub gaawu nga génn daa wax nag ci weeru rabi li ñuy mooy weeru safar gaawu nga génn at moom atum jay sosi la yaa nga taseeg tubaab yi foofa ca jeewal ci ëllëg sa nga yendu ji kokki daldi jàll Louga Louga nag nga ware saxaar wuti ndar ba nga demee ndar sax nga fa ab diir boo xam ne weer jëm lu ko ëpp nekk nga ko foofee ci ndar ña fa nekkoon te amee jàngoro réer ak jiixi jaaxa nga fajtal leen ci seen diggante ak seen borom te mar taxal te topp nga laxas jihaaroon ci ak njéeméer fii safinatihaa ci gaalam nga tan xoo da nga jublu daa tan xoo dana jublu moom gaal ga ndakaara dakaar bi isnil muumini ci digalul yàlla mi aji wóoluloo al abadi kay ko ñu dappet ñu bindaale foofu yaa koo xam du maas al abadi ne ko nag da nga bàyyi koo ndar saxaar lañ la waral nga dugg ca wuti ndakaaru lépp ci coobare yàlla waxad aqamte te sax nga bihaa ci ndakaaru macha allah soob rabbuka sa boroom fi hifzil muhaymini ci wattuk yàlla mi aji seere lépp fardan mbir mu ngay kenn fut yi kook jotoof na ko bindu foosi ci ay bakkan su martaxalta topp nga laxas bi idnillah ci na meelug yàlla moo tamidan mbir muy aji sukkandiku àll yi ci yàlla wal xol ba te mbir mu xol ba lam yushrik bokkaaleelul yàlla wala mu yaxit te jengut ba nga demee ndakaaru sax nga fa la yàlla dogal nga nekk ko fa ñu door laa nag dugal gaal jëm ci fiñ la jëmale lépp yàlla di la aar ngay kenn koo xam ne ay bakkan yi bakkan mooy ñu mbooloo mu bare bari nangoo nañ laa jot mbooloo yu bare bari buñ sañoon jote la seen bopp yow nga toog des fi ñoom ñu dem la nar a dal dal leen ñoom waxaat wala sa te nga tàbbi fii safinati bahrin ci gaalu géej kama yaxtaaru naka tànne mawlaaka sa boroom mootil am ni kay aji joxe wóolu ga war raxadi ak yaatu dund ga nga bàyyi ko ndakaaru gaal nga war ci dogalub yàlla ànd ak gëm gu mat la bokkaal yàlla dara mosoo gees lu may moom til ka safinat googee gaal lam yudkar masifuta tudd ilaahu ka sa buur fii xaa ca moom xabla zikri ka ci njëkk sa tudd fii xurbin ci jege wa fii buxut ak ci sori gaal googee kenn mosu caa dugg di wóotal yàlla di ko jaamu ku may yow njëkk nga cee dugg kenn mosu caa dugg tudd fa yàlla xadamta liggéeyal nga fii xaa ca moom annabiya yonante ba al mustafa ba di biñu tànn xalaman mbir bi ngay xalam bi nuuri fikrin ci leeru xalaat azimil faydi bi aji rëy ak bëbb wala baawaan muttaqidin guy aji tàkk ca gaal ga nga sax ci bëggee yonante bi ndax nee na woon xàlla man irrahmaanu fi safina bi anna ni xadimu dil madina xatta xabaaka ba mu may la bi maa ci loo xam ne xadd faaqa kawe na zànnaka sa njort min fathin ci ak ubbi wa bishrin ak mbékk wa ridwanin ak ngërëm maxa sadadi ànd ak jub danga liggéeyal yonante bi ca liggéeyu géej ga ba nga duggee ci gaal ga la liggéey ba tàmbali danga liggéeyal yonante bi daal ba mu may la loo xam ne kawe na njort lam la may ci fatu ak mbég ak ngërëm ak jub kawe na njort yépp waxadd nasalta wàcc nga bilaa ray bin ci lu amul benn sikk sàkka konaakiri konaakiri kayitam xoo ngir nga far almanaakira yu bon ya yaaman yow mi nga xam ne fàkka xobbi na maanaam yewi na kulle hadin képp ku ñu yeew képp ku ñu jàpp dana ko ci yoon wa jaar nga konaakiri yàlla may la nga dindi lépp lu bon loolu mu wax ci konaa kiri xëy na day junj la sëñ bi waxoon ne hadiyati safat la daa konaa kiri lil mustafa al maaxi bila mana kiri xëy na itam loolu mu ne fekk nga ku ñu jàppoon yeew jéng nga dajji jéng ba xëy na kon waaye saalum jooju ñëwoon di ko siyaare te sëñ bi dénk ko dénk bu rëy boobee xëy na loolu lay junj ba mu fa tolloo daa am ku dikk nuyu ko ne ko man waa saalum laa dama dégg ne yaa ngi ci gaal gi ñëw rek ñu la yóbbu gabon ma ne woon naa ñëw siyaare la ndax nga dénk ma nee na sax waaye saalum joojee jox na ko fa addiya sëñ bi nag ne ba mu nee ma nee nañ gabon lañ la jëme ci laa déggee turu gabon woowu jàpp ne kon ca lañ ma jëme foofee nag fa la ko sëñ bi dénke woon ne ko jàppal bu baax laa ilaha illa allah muhammad rasulullah ndax kat ku dëg ma lu bokkut ak yàlla da nga masa jekki bis ba xam ne yàlla rek a yàlla te moom rek a matoon a dëgmal ku dëgmal yàlla it te jaari woogu ci li yonante bi andi muy sunnaam da nga jekki ci bis ba xam ne yàlla kat moo digle ku ko dëgmal waaye dane nañ ko jaare ci sunna si yonante bi ku ko ci jaarewut jëm si woo ca moom xëy na loolu lay junj mën nga koo xooli ca irwa un nadim waxad ab dayta te feeñal nga fii karambasa ci karambas xaari xatan lu xotti baax minal xawaarix yi ci way xotti baax yi tam xoo boobu dana far kulama damadin gépp toroxte wala gépp gotti muy tooñ am na karaama wala xarbaax gu la yàlla xottil foofee ca karambasa fa arbu daawumi suufus daawme ma ardi libarwali ànd ak suufus libarwal xat darat xam na bi ànd naka ci naka yow xawsullahi yaay xettalu yàlla fi ni bala di ca réew ma dawme dañ ko waxatu noonu léegi mooy wax benee dañ koy tudde léegi suñ bi dafa jaaroon nag tudd na ko sax ci bu dee tudd yim jaar te ko suufus dawme ak suufus Libreville mooy Libreville ji nga xam ne mooy capitalu Gabon rek da ko wax naa ko suuf yooyu xam nañ yaay kan xam nañ yaay xeetalu yàlla li wax ci garam basa ne sëñ bi yàlla defal na la fa karaama gu rëy rëy xëy na day junj la borom riwaa un nadim nett li ne sëñ bi ne ban demee ba jege garam basa googu daa am benn waay boo xam ne nit ku ñuul la di tëll seen ma ne ah kii du ahmadu bamba waay nee na ma xool ko mu ne ma ah xamoon naa ko nee nañ ma sama mbokk ma moo la jàpp ndax sa taalibe yi nekk di la kaw kawee rek fu ne ñu teg la fa tàmbalee wax rek nee na wax yu ñaawa ñaaw waaye ci dogalu bu yàlla yàlla riiral gaal gi gaal gi riir riir mu xumb xumb moo xam ne waa ji mënta xamat li mu wax mujj mu ne pat rek doon xaar nag riirum gaal gi dal ba mën a dellu ci wax ma yi ñaaw yi ma doon wax waaye far yàlla dogal riir moomee gaal ga doon riir ba kenn mënta xam lay wax moo wéy di wéy ba gaal ga teer waaja wàcc ca ba nit ñay wàcc suñ ba sax wax na feefee ne adhaba xanillahu fi garam basa qablu mubarisi wa xanni xal basa suñ ba sax da caa teg ne bañ demee nag ba daawme gi borom wi tudd léegi te léegi ñu ko wax benee am na fa karaama gu rëy rëy ku ko fa yàlla defal man nga koo xooli ca irwa un nadim arayta wan nga baafala baafal ayatin ay kiimtaan mu bay yanatan yu duñ biral istanaara yooyu leere na bihaa ca ñoom alhuda jub ga li kulli moo taqidin ñeel jëpp aji fas wakabaate këpp na tiirful makiidati sàllu pexe wa tiirfu aw sàll mooy fas wu tedd këpp na bin xaddu yi bin xaddu yi ànd ak noon ba jàppe ko mufrat ndax lee mu ca teg it kaada ba mu fexee bi kab labis ci kab labis daa kablin mbir mi boroom mu jéng bilaa xaddu din ci ludul ndimbal nekk foofee ca baafal wane nga fa kiimtaan yu rëy rëy ba tey foofee ca kabla bés noonu la doon fexeel foofa la fexe këpp ci kawam dara sottiwu ca fuusta te tuufu nga bir ritwaani ci ngërëm wal madadi akuk tëbb xinda galwaa fa galwaa ataala yàlla na doole yàggal allahu yàlla xumraka sa dund yaa samsal huda yow mi jantub jub foofee ci galwaa fala la yàlla maye ngërëmam tëb lay ngëneelam waxaat dara jaata te dellusi nga bimaa ci loo xam ne lameer ji xàn na dellusi wut bi ci ak lu mel ne moom dul xaj ji boroomuk aj wal xas wi ak xare ji aw sut tëjri wala boroomuk yaxantu min rifadin ci ay may wala ci ay xont sa tukki bii li nga ci andiwaale nit ajana ba tàyyi mbaa mu xare ci yoonu yàlla ba tàyyi wala mu dox di yaxantu ba tàyyi te andiwu sax lu jege li nga andi wa jiita te dikk nga rahmata rabbin mbir mu nga yërmaande buur la sharika boobu di jenn aji bokkaale la xoo di ko ñeel li zalimin ñeel aji tooñ wa ax yi sabaxin ak boroom ko raw wa muqtasidin ak aji dikk doomu dana ko dangaa ñëw doon yërmaandey mboolem xeetu yonante bi la alquran ne fa minhum zalim li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum saabiqun bil xayraat ka tooñ boppam nga xam ne jëfewut lañ ko santoon ak ka digg doomu jëfi rek yem ca waaye jotu caa ñor di keneen di ko ca gindi ak nag ka nga xam daa boole jëfe ko ñoo di ñeneen awale leen ca nekk ñoo ñëpp nga dikkee yaay seen yërmande ci dogalu bi yàlla xaddi sirta mujj nga rukk nan di ab ponk malaadan te ab wéerukaay yustajaaru boobu def na sàkkoo làqu bi ci moom te wi dana tàpp ileek jëm ci yow wu foo dun naa si way dikki nit ñi intafit ndem dañoo dikk ay ko ci wafada yafidu te ne ko da ngaa mujj di làqutukaay boo xam ne nit ñëpp wala ñu bare bari ñooy fàq rek jëm si ci yow ndax bëgg a làqu si sudd naa sang nanu siwaa naa kudul nun waqudu naa te nu wommat xayri naa kudul nun dikka ci sa daraja yaa cheikh ci yow sama sëriñ walaw laaka bu lukoon a yow maa qudu naa du nu wommat keneen wala na sut te du nu sang keneen ba ñeneen tax nga nu nekk sangi ña ci des tax nga itam nu jiitu aw ci yoon wa ba ci womat ñeneen te loolu lépp yow doo nga tax bu lu ko na yow du nekk ay sang kenn di nu féeti suuf du nekk ñu aw ci yoon wa ba ci womate xàqun àq la xalaa kulli saxsin war jëpp jëmm moo amee liñ koy aji jëfloo fi karan ay xalaat ay yoo amee la mu jëfloo al fikra xalaat ga fii kum ci yéen kullama amadin ci bépp diir képp ko xam ne yàlla may na ko xel te mën a xalaat mën a tagg tagg yu rafet war na ci moom mu jëmale xalaatam ci tagg la te di ko def saa yu nekk fa kullu mar in sépp si cam mu jiidin ku di aji rafetal madha xëyri kumoo tagg kudul yéen fa innahu naka moom la muy jit rafetalut xinda ahlul xilmi fañañ xam-xam ku mën a tagg lool lool bañ di ko yéem bu taggee ku bokk te yow it day mel ne rek tëggut lu mu tagg-tagg day mel ne tëggut ndax daa jëmaliwut tagg wa fa mu waroon a jëm laakin waaye tanaaw ko sag tagg yoon yi dana lottal kulla mufliqinaa képp kuy aji tépp ci nun walaw bi alfi lisaanin ak doon ci daa ànd ak junniy làmmiñ summa alfiyatin topp junni xoo mu nekk waaye nag tagg nga xam ne moo yàlla ci yow dëgg-dëgg kenn ci nun mënu koo jege wax lu na mel ku yàlla mayoon nga amee junniy làmmiñ amee junniy loxo loxo yi bind làmmiñ yi wax itam du tax rek mën laa tagg na mu yàlla ci yow du tax yaa taaliyan yow aji topp li kitaabillahi ñeel téereb yàlla bi taaliyahoo te aji jàngam ja xaqat tilaawati dëgg-dëgg jàng ga xam ne lam yurit nambutit xayrullahi lu dul yàlla wa faiqan te aji kawe fii si baaxu ca ndawam ga aljila maas ga saabiqahum te aji jiitu leen sabqal jawaadi kem jiitug naaru góor wa isastawla ndeem not na xalal amadi ca lef ma wa yaa waliyan yow waliyu xaliyan kuy aji kawe la nazira wow déet ndend la foo di ko ñeel fil makrumaatu ci teraanga ya murabbi kulli di rashadin kay aji yar képp kuy boroomu jub yaa xayra man yow ngeen ji koo xam ne siixa taggeef na aw saanul madihi màndaxee tagg la foo ñeel ko baada nabi ci gannaaw yonante bi rasulil maliki kay ndawal yàlla mi aji moom assama di kadi ku njubli ci aajo alayhi yàlla na doole nekk ci moom bil aali ànd ak ñooñ ña wal ashaab wal ashaabi ak saxaaba ya min maliki yi bàyyi ko ci sama buur aska salaatin gën jaa seeli teral yorub diika bot noonu la gërëm loo bi xaa ca moom yaa sana di yow sama weerukaay yaa man yow mi nga xam ne xabaan yi may na ma xalaama ànd ak li nga xam ne kaana amoon na min zalali sama rëcc rëcc siran ci lu nëbbu wa jaxaran ak ci lu biir mu may ma nag bi musuri kulli di zabadin ci aji xeebloo lépp luy boroomuk fuur géej guy fuur yaa mut yi fii yow aji may sama bi nawaalin ci ak may lam yu tiq goog attanut xarimun xarim alayhi ci moom kallaa déedéet wala noomaan du caagee noomaan du safa di koy boroom may ga yaa xayra laysin yow ngeen ci gar xasoorin guddi ñaloor jaada ngoog tabe na lii ñeel ma karaman ci tedd nga rek ci mbaax rek bi say nasrin ci jaasi ndimbal azimin ju di aji màgg xatidin ju di xarookaay lil xidaa ngir noon ya woote bi des na ba tey la tàmbalee yaataaliyan ba fi nga àggun yëpp way wu ci nekk am na bu wootee ndax wa faay xan ci ataf ci taaliyen daanaka daa ataf ci woote ga daa mel ne woote daa njëkk ne ko yow mi nga xam ne ngay topp alquran na ko yàlla bëggee di ko jàng itam na yàlla bëggee yàlla may la ba nga dee ndaw rek nga rawoon sag maas jiitu leen ni nga xam ne moom la naaru góor dëgg-dëgg di jiitoo ca tuur ba yàlla def la ngay wàll yu kawe kawe amoo moroom ci genn wet te yaay koy tarbiya ku yàlla nar ci moom jub rek yaa koy tarbiya yow mi nga xamee ne gannaaw yonante bi képp ku ñu wax di ko tagg rek yaa ko gën gannaaw julli yonante bi mu ne ko yow mi nga xamee ne da nga maa may lu xeebloo géej li may bari bari ay rëcc rëcc ci biir ak biti da nga maa may ba may ma loo xam ne xeebloo na lépp lu bari ndox bay fuur yow ma may may goo xam ne xarim ma Zuhayr doon tagg wala noomaan ma naabixa doon tagg da nga maa may loo xam ne attanuñ mënuñu xalaatuñoo maye lu na toll yow mi ngën ci gaynde goo xam ne da nga maa may jës yi ngañaay loo xam ne ci laa gañee noon ya mu jàll ci woote bi yaa man yow mi nga xam ne xada xëy na kan sa duniyaa yi di koomum sama adduna wa axirati ak sama alaxira yaa ak raman yow ku gën a tedd xàlla kook fecc na maa lépp loo xam ne xadd kaana amoon na min xuqadin ci ay pas-pas yaa man yow mi nga xam ne xadaani jubal na ma wa alaani te mu yëkkati ma wa ataqani te mu goreel ma wa jaada te mu tabe li ñeel ma bir lësi ci la nga xam ne ahwaa danaa ko sopp bilaa nafadin ci lu lu jeex xubaydu ko sas njaam alxinnu kay jaam bu sotti ibrahimu jóoba te mooy ibrahim jóob ataa dikk na lam yalha du soxlawoo xan ka walis yow bi ahlin ci ñooñ laa déedéet wala waladin du caageenu doom li mujj wax ci woote bi mooy dana ko yow mi nga xam ne yaay sama koomum tey ak ëllëg yow mi nga xam ne yaa ma feccil lépp lu ma jaaxaloon ci xeeti pas-pas yow mi xam ne yaa ma gindi yëkkati ma teg ca kaw goreel ma may ma laa bëggoon te mu bare bari ba du jeex sas njaam su ñàkk solo tudd Ibrahima Diop mi ngi nii ñëw ci yow fasul yéene soxna mbaa doom mbaa dara di ko gàllankoor ba tey ko ñëw ci yow xadd xaaka ràbb na buur data maddaxin mbubum tagg min sanaa ik moo ci seenu tagg xasaa yu karramu xëy na lee def na ko teral bil xusnaa ci àjjana wa bil sëyéedi ak ci ndolleen faqbal yàlla na nga nangu bi fadlika ci sa ngëneel maa li nga xam ne xat ji ëttu dikke naa ko min midaxin ci ay tagg xabuula kaafin kem nangu aji doy kafiirin kuy aji gàddu di xinal abadi ci koomum dappet dama ràbb mbubum tagg waaye dama ràbb xasid ak tagg di la ci tagg ndax li yàlla fayama ci àjjanaak ndolleen am na ñu ne lillazina ahsanul xusna wa siyaada siyaada mooy an nadaru ila wajhillahi taala alkarim te na ko alis ba firee kon dama laa tagg di yaakaar tagg wi yàlla fayema ci àjjanaak gis ja moom ji tedd ji ca boobee ñu koy gis nanga ma baaxe nag nangul ma tagg wi nangu goo xam ne ci ngay jaare warlul ma koom bu dul jeexati mukk mukk wala te dar nii te bul ma bàyyi wa sahmul hammi te fettuk njàqare la yar suq nii mi ngi may jam indi naka man jaxaltu ko def naa la ustaazan ngay ab sëriñ faxul jàppal bi yedd yi ci sama loxo faman laaga ku wéeru bi jaaxi ko ci sa daraja hindillahi fa yàlla najaamu mucc wala ñu raw yi aaxoo te du ko tiital zaërul ak yëmmu minal asadi gu tukkee ci gaynde bul ma bàyyeeg sama njàqare lii mel ne fett gu may jam saa yu nekk bul ma bàyyeeg moom ndax man def naa la ngay sama sëriñ kon jàppal sama loxo teete ma xam naa ne yow sa daraja rëy na loolu fa yàlla ba ku wéeru ci sa daraja jooju rek daldi mucc te dara du ko mën a tiital ataala yàlla na dolle yàggal rabbi sama boroom kama tarda naka nga gërëme baqaakum moo seenug des fii naa ci sunu biir wa axtaakum te mu jox leen arridwaana ngërëm fi abadin ci faw bi xormatil Mustafa ci oromay ka ñu tànn xayril xalaa'iq mi ngën ji mbindeefee man ka nga xamee ne man raama ku sàkku sharwaaxu ndendam fil akwaani ci biir mbindeef yi la mee jit du ko am salla yal na dool tedd nga alihi ci moom ilaahi sama buur tuma sallama topp mu doli ko wóolu maadaama li fekk sax na albaqaaw des ga li man di ñeel yàlla mi nga xam ne ah laa kaweel na asamaan bilaa xamadin ci dul kenu wa alihi ak ñooñam alxurri ña di ay sang wal ashaabi ak saxaaba ya xaatibatan mboole seen wal awliyaay ak wàlliyu ya dawil anwaari ña di waroomi leer wal madadi ak fuk tëbbo man ña nga xamee ne hum ñoom xosoo nii ñoo di samay sëŋe waxum te ñoom rukk nii ñooy sama ponk mooy sama wérukaay ñooy sama wérukaay waxum ñoom xadu dii ñooy sama përëg zaad yi sama yóbbal mahabbatuhum mooy seenug sopp xas bi doy na ma bi ci loolu mu yóbbal faqat te mu doy dafa daaneel xasida gi ñaanal sëñ bi yàlla dolli ko fee yàggal ci àdduna ci sunu biir ni mu ko bëggee dolli ko may ngërëmam muy wéy rekk ci orma yonante bi nga xam ne moo gën ci mbindeef kuy wut moroomam it doo ko am mukk mu ñaan yàlla dolli teraanga yonante bi dolli ko ay mbokkam ak i saxaabaam ak wàllu yi nga xam ne ak wàllu yi nga xam ne gannaaw saxaaba yi ñoo leen wóotu ne ñoo ñëpp nag ñoom laa def ñi sama dëgërloowaay ñooy sama doole ñooy sama sësuwaay te it sopp gi ma leen sopp rek moom laa def yóbbal te loolu doy na yóbbal wa qaala aydan waxoon na min baxril xafiifi ci baxrul xafiif la zaala yàlla bu mu deñ xafiifan di aji woyof min kulli wisrin ci bépp bàkkaar dafa daajoon ci taaju xafiif mu ñaan yàlla jéggal ko ba mu bañ a yonati benn bàkkaar bu diis xalli bàyyil salma salma wal uxta ak mbokk ma mayya te mooy mayya yaa xillu yow xarit bi laysa yu judi ka du la jëriñ dikru salma tudd salma wa mayya ak mayya wa bëxi sàkkul ridwaana xaaliqil xubbi ngërëmul yàlla mi aji bind cofeel boo defee xubbi bi dammil xaayi boo defee nag ridwaana xaaliqil xibbi muy ngërëmul yàlla mi aji bind soppe ba alxibbu bi maanaa alxabib rabbi kay sama boroom bim ci daaxil ustaasi ci tagg sëriñ ba maa dumte li fekk sax nga xayyandi aji dund sama xarit ma dénk la bul fi jekk di tudd salma ak maya ak ku mel ne ñoom jekk di fàttaliku salma ak maya xeetu jongo ma yooyu la amal benn njëriñ boo dee wax rek waxal ay tagg te jëmale ko ci sëriñ bi te tagg nga koy tagg nga sàkku ci ngërëmul yàlla ndax tagg nga koy tagg te sàkku ci ngërëmul yàlla mën nga caa amee ngërëmul yàlla fekk yaa ngi dund nag kon de ko tagg tey sàkkoo ci tagg wa yàlla defal la ci ngërëmam famti daaxul ustaasi tagg sëriñ bi ribxun tona la azimun ji aj rëy waxti saasum te ak jagoo la mbaa ngëneel la yuuliika bëgg rëy méngale xadaram daraja xaliyan ci aji kawe mu ne tagg sëriñ bi tona ju rëy rëy la ngëneel la loo xam ne ci la yàlla y maye daraja ju kawe kawe ay li mu ci namm imaamul hudaati ilimaani way jub ñay jubal man ka nga xam ne saara mujj na baxran di géej mundu xaakaa di rub nurante naag si waaxu gudul moom min hum ci way jubal ña ati yan am yol rek dane mooy ilimaani mboolem ña jub tey jubal moom nag ni mu rawanteeg gaa yu baax yi ëpp na ndax dafa mel ni moom day géej ñoom nag ku ci nekk di am yol rek ay limu ci nam xadimul muxtaari liggéeykatu kañu tànn yu duhaa def na ko wooye wa yu duraa te defi ko xame bismihi ci turum wa wasmihi ak màndargaam zakiyan mbir mu mi aji ñaw zakiyan te aji sell ina xadimul muxtaar dañ koy wooye muy aw turam di màndargaam ku ko am ci loolu nga ko xamee zaak kookee xutubun xutub la boo xam ne maa fii kajoorin dir muy nekk ci kajoor wala fii bawalin du caageenu ci bawal misluhoo ku mel ne moom taqiyan mbir mu mi aji ragal yàlla naqiyan te aji set la taraaxu doo ko gis moom moroomam bi xarxin ci penku bal li fi nekk mooy laa bi xarbin du caageenu ba tey ci sow huwa moom fardun kenn la fam dax fu tagg ko matxan tagg baxiyan wuy aji taaru yana boo wëroon kajoor ak bawal ak feneen tam doo gis ku mel ne moom man nga ni sax boo wëroon penku ak sow ci gàttal doo gis ku mel ne moom kenn rek la amul ñaareel de ko tagg kon tagg wu rafet